capitaine nuyu naa. waaw fay naa la. mais tey mbooloo mu yëpp nga andi. li nga andi doy na waar. gis nga nag xale bu ndaw rek nekk si yoon xam nga gars yi bogal ma seen bopp aw ma seen fay. billaay mooy sa ñaari combat. lii mooy cinquième bi. waaw. mais am ci yow yaakaar ñi ma gis nii. ñoom waaye saarañ lañ soxla si man. te yàlla na ko yàlla def yàlla yàlla motul li des. maa ngi bëgg ak waa adduna ñëpp. aw seen fay. sa diggante ak Aïdara tey loo ci nar. waaw pare nañ lépp alhamdulilah waaw. kii dina gaaw. waaw. mën naa gaaw mën naa yee. mais to en tout cas daal comme grand moom lu mu moom lañ indi. ndax nañ lépp nañ rapidité indi nañ ta. waaw kon baax na ci. jaajëf. kii nga ko joxoñ lan la. non baay. mais tey booy bi booy mobilisé na de. waaw gisoo booy maa ko ma gën a baay. maa ko gën a laa la waaw bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama neuvième combat. nga def neuf nga nangu koo jël. mu def cinq combat nga def neuf combat loo nga nangu koo jël. waaw la rek xam nga dama teg la doo defar loolu moo tax ma wàcce meeka sens bu fekkee ne bëre moom. non incha allahu rabi yàlla damay may ndam pare naa su ko defee ànd naa samay mbokk. xeex wala bëre. lu mu laaj rek waaw lu mu laaj incha allahu rabi dama koy jox oui. kon kon naa naaj. waaw naaj. naa la. dooli bëgge. ci loone. sant yàlla alhamdulilah. lan moo ci des fi mu toll nii. ah. ma ne koy bëre. bébé Jali. bébé. Jali Jali. ndam rek incha allah. dina yomb wala day day xaw a yéex. ma ne dina gaaw laa wax. lépp si mën a am. waaw mais mu gaaw daal moo gën. maa a wóor. waaw incha allah. gis sama gars ndam noo ko jëndee ja. waaw ndam daal neex. félicitations. merci beaucoup. mais keroog combat bi gaaw na de. waaw dafa war a gaaw parce que saa waa ji nee na est jeex na la sifflé. ardu bi jeex la sifflé. mais loolu lañ ma digaloon loolu lañ ma parce que moom moom expérience la am dama ma laa mën a bëree. gannaaw daan nga ko léegi foo jëm. waaw gars yi neex na sama kanam ah. kéwél man ak moom combat bu neex la. kon da ngaa dugg ci kéwél. barke alxuraan combat bu neex la man ak moom kéwél la. combat bu dara tax combat xale la. xanaa gisoo démb jëli mu daan. ah xanaa gisoo démb jëli bi mu daan. non loolu daraanu ma ko sax. dañoo ñu bëre. man li ma mën laa xaw ma moom li mu mën. Laye Peul Laye Peul door na ko léegi Laye Peul Vita dañuy xeex door na ko jël na tànk ba Laye Peul ak Vita ñoo ngay xeex amul round d'observation Habib daa sif la rek bali tàkk Laye Peul Vita Vita moo ñu féete à gauche jot ñoo sa présenté Laye Peul moo nge moo nge mul xonk li eh Vita na ko Vita dooraat na ko Laye Peul Laye Peul Vita wa ngay door Vita jàppul Vita jàppul fenn Vita Laye Peul Laye Peul am na benn loxo ci ngemb waaye Vita jàppul fenn laay pël Vita laay pël bëgg na xar waaye Vita daa bañ laay pël laay pël a ngi forcé di tante kele laay pël Vita Siteu jël na tànk ba laay pël bañ laay pël Siteu Laye Peul Vita Vita Laye Peul na ko Vita daanoogul capitaine nga yëngal stade ba Vita takk na ko takk na ko. day rëcc takkaat na ko da ko jagal seen Vita daan na Laye Peul na Laye Peul yi abir bi sifle na combat bi dox ci diggante Thiely Thiely door na Boy Walo fayu Boy Walo Thiely 2 Boy Walo daw na jëli Thielé ngay dóor ñoo ngay dóorante Boy Waalo Thielé xeex nañu ñoom ñaar Boy Waalo Thielé 2 eh Boy Waalo doon na góos bu daal daw na jël ko da koy daan laay lay la laa oh Thielé daan ko jël bu rëy Thielé da koo jël rek daw mbëkk ko Thielé daan na ko wala boog daan nañu Thielé Boy Waalo daan na Thielé Waalo Boy Waalo daan na jël bu Euh, mooy ndox mi nag Adama ndox mi day yàq làmb ji ndox mi. ziar naa la. man damaa jékki-jékki dégg sa taxaw na ma jékki-jékki dégg ñu ne la nga daw delloo avance looy daw. combat bi daa taxaw man benn ma Hercule daw na ba ma jàppee Hercule daw na ñu ñu ne may war ma liggéey ba ay ay ay yooyu ñu woo ma ma gars yi saat ñu woo ma ne ma gars yi saat ma ñëwee saat gars yi ne ma Hercule moom moom moom ngay bëre may naa boobu ñu ne ma waaw fekk waxuñu kase waxuñu dara bàyyi ma ma signature ba def lépp ba xumbar ne ma laajal gars yi kase bi ñaata la ma ne gars yi kon waxu leen kase bi ñu ne ma noonu ma wax sama ay saf wax leen li leen fay gars yi ne loolu du ko bëre ndax loolu. nangu woon na bañaat na nangu atu dara. wax naa ba sonn ci laa nekk combat bi maa la gën a bëgg fuuf combat bi bu ñu bëggee léegi nii wallaahi la asi ma bëri ko ma bayee ma bëri ko alxuraan maa xool ba leen jox la ma irkil maa ko mën maa ko doole. kon fi mu toll nii su avance bi ñëwaatee nga amul xaalis la ko beneen promoteur bu am xaalis ñu bëre maa ko maa ko gën a xëy fuuf ba pare man maa xool ba ne demee circule man maa ko gën a bëgg bu ma bàyyi léegi ma bëri ko man bu ma fël kon na ma yaa circule fee ma dem man bopat faayewul circule waxala circule lay seetaan ndax kenn avance du yàgg barke alxuraan avance bi mësul yoon sama loxo mësumaa gis avance alxuraan xaw ma sàlli na fay bi ma signature ba pare lañ na ma wóor gars yi laaj la ñaata lan la fay ci kasi barke alxuraan ci laa pare laaj leen ñu ne ma lii lan la fay moo wax gars ma nekkee li la fay gars yi loolu la ñu wax quoi sa waay sax man man kontaan na ma xaalis man naa bëri rek bu ma bàyyi ma bëri de man bu ma bàyyi ma bëri mais sama ay ñoom ñoo bañ combat bi ne liñ la fay doo ko bëri ndax yow kuy jaay ba doyal xam nga ne bu la fayee prix gars moo tax ñu bañ mais man bul ma jox ay kii sans bañ dara sans bañ dara ma yenn ko ba sa kaw dégg suuf maa ko. kontaan naa waaw. capitaine la ngay fecc. laa ilaha illallah. Oh! ey capitaine waaw Wassim Touré ngi noonu Sewru Fall dem na wax na moom ci problème mu am na solo mooy ménagem waaye xoolal ma tëggkat ba déggal la muy tëgg non mais waa Fissel mbaran jaaxal nañu ma carrière ak noonu waay yaakaari Bawol la yaakaari Fissel maanaam waaye révélation la ci lamb seeni moo wara bëre ak ay dara bu écurie Salmon 2 ak Cheikh Mbaba eh Cheikh Mbaba door na Salmon Salmon Salmon. Bébé Diallo ak Boy Ciss da koy lay lay la la eh Boy Ciss daan na Bébé Diallo Bébé Ciss daan na Bébé Diallo Boy Ciss Bébé Diallo jël bu Salmon numéro 2 ak Cheikh Mbaba. Salmon numéro 2 mbokk yi moo ñu féetee à droite Cheikh Mbaba moo ñu féetee à moo ngembul xonk bi Salmon moo ngem moo ngembul vert li arbitre bi sifflé na Salmon numéro 2 Cheikh Mbaba Cheikh Mbaba moo ñëwaat ginnaaw Salmon la nu lool Cheikh Mbaba a ngi dox ci kaw Salmon. Salmon Cheikh Mbaba Salmon ak Cheikh Mbaba Salmon door na léegi Salmon ak Cheikh Mbaba Salmon ak Cheikh Mbaba Salmon door na léegi Cheikh Mbaba fay na Cheikh Mbaba ak Salmon Salmon ak Cheikh Mbaba jàppante nañu ñoo Salmon ak Cheikh Mbaba war na ko nu mu koy def yenu na ko doxay daan Cheikh Mbaba daan na Salmon Cheikh Mbaba yenu na ko kaw doo ci suuf combat bi dox ci diggante Aidara ak capitaine lundi 15 août journée fi Iba Mar il est 20h11 Habib Ba wax ak ñoom li la ak li la bañ capitaine à gauche Aidara à droite. réew mi capitaine ak Aïda capitaine ngay sëlmu Aïda door na ko Aïda ak capitaine xeex nanu capitaine Aïda eh, eh. Aïda Aïda ak capitaine xeex nanu capitaine Aïda am Diop joxoon Ndiaye de eh, ñoo ngi xeex ba doomu daan du ci am capitaine Aïdara waaw waaw eh, balaa ko balaa ko yëpp faaw nga ñam ko capitaine ak Aïdara capitaine ñu woon ginnaaw Aïdara bu tënkee te nu lool capitaine Bara Dione Aïdara songaan gay capitaine Aïdara waaw mais ba doomu daan lu ci capitaine Aïdara laay la laa ñoo ngay xeex capitaine ak Aïdara capitaine door na capitaine Aidara capitaine jege nga saaku yi Aidara ngi dox ci kawam capitaine doon xeex capitaine Aidara ba doomu daam du ci am capitaine Aidara ñoo xeex jël na ko ardo capitaine a ngay dem Ardo capitaine Aidara capitaine ak Aidara abi sifle waat na capitaine à gauche Aidara à droite Aidara capitaine tekk na ko léegi capitaine Bada Dione Aidara écrit Songane Gueye xale dañuy xeex jëflante ñoo ngi bëre capitaine ak Aïdara capitaine ak Aïdara capitaine Aïdara Aïdara xale yi bëgg nañu combat bu métti xeex nañu jàppante bàyyante dóorante capitaine sànni na ko góos Aidara capitaine sànni waat na ko capitaine ak Aidara temps bi jeex na temps bi jeex na bëri nañu léegi ñoom ñaar ba mi temps capitaine dem na ardo del siwaat Aidara écrit songaan kay capitaine écurie Baron ñooy noonu ci digg géew bi capitaine à gauche Aïda à capitaine cokaas na léegi door na ko capitaine da ko bëgg a jàpp jàppante capitaine fàq na ko capitaine capitaine lu mu bëgg a def capitaine jàpp na ko Aidara dafa xaw a diis capitaine daa bëgg a tànn kele waaye Aidara daa jàpp nañu Aidara capitaine capitaine capitaine est-ce que li ngay def woon na am ku ci am nga loxo ci ngemb capitaine ak Aidara jàpp di déglu sa morom Aidara bëggoon na ko bañ capitaine na lu mu bëggoon tante capitaine ak Aidara fàq capitaine fàq na ko capitaine fàq na Aidara capitaine ak Aidara Aidara ba noppi raaj capitaine jàpp na capitaine Dieng nak Aïdara capitaine ak Aïdara ñoom ñaar dafa mel ni dañoo xaw a tolloo doole fàq na ko fàq na ko da koy daan war na ko ndombo capitaine war na ndombo Aïda